que pare ngeen kan mooy ki nga xam ni kan mooy ki nga xam ni tey war dofal la vision du président la République kan mooy espoir bi nga xam ni moom la sénégalais yi am ci moom kan moo incarné loolu kan kan ngeen bëgg dégg kan bëgg dégg mais il faut ngeen ànd ak dara mais les mouvements de foule là je sais que xel bi am na xel bi am na mais il faut ngeen ànd dal gis nañu cofeel bi ku nekk foo taxaw xamal ni président Ousmane gis na la gis bi c'est pas la di buuxante di indi ay difficulté tàccu leen seen bu baax a baax tàccu leen seen bopp bu baax ma lè wò ó bí yóò. le Nioro kon ñu déglu président Ousmane Sonko mu mën waxtaan ak yéen bu ko defee ñu mën continuer yeneen état bi président jeunesse Nioro ñu ngi lay déglu population de Nioro ñu ngi lay déglu vous avez président Ousmane Sonko mooy jël la parole fii nii à Nioro di fàttali nii xeex bu métti amoon na fi pour que le président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak si fii nii ci présidentielle 2024 yi président ngi noonu nee nañ ko yaay seen baay asalaamaaleykum mbokki Nioro ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaan ni ko président Déthié ñaane Sakho ñëpp ànd ak dal parce que bëgguñu bousculade am mu am ñu fi gaañu élection période électorale, ça doit être des périodes loolu ngeen war yi fii tey yéen waa Nioro ndax réew mi ëppale wuñu jafe-jafe am na waaye dañoo nekk ci étape boo xam ne sénégalais bu ne day féddali kóllëreem ak cofeelam ci ki mu tànn kii mooy sama leader politique loolu nag jarul xëccoo jarul xeex jarul agression moo tax élection moment de joie la war a doon feetu démocratie la war a doon jogante la waaye jogante ci xalaat ak ci programme ak ci gis-gis moo tax yéen nitu Pastef militant comme sympathisant da ngeen siggil démocratie da ngeen siggil démocratie ndax bañ leen bëggee jaay doole ngir faagaagal démocratie taxaw ngeen def fulla ak fayda ba wane ni un peuple uni jublu ci benn objectif kenn mënu koo téye ci ay grenades lacrymogènes ak ay tëj kaso waaye bi ñu génnee ci loolu ba yàlla jox ñu ndam jaaree ko seen loxo yàqkat yi yàqkat yi rawatina rawatina ay politiciens yoo xam ne kenn ku ne jox lañ ca chance pour defar réew mi nga ñëw yàq réew mi ci corruption ci jaay alalu réew mi ak ci def naka sunu kon damay rendre un hommage à la jeunesse de Nioro xam ngeen dama leen remercier leen Diomaye Faye bu ngeen déggee ma ne Bassirou Diomaye Faye nag mooy candidat ba ndax man bés bi président Bassirou jëw fii man ca laa newoon Kaffrine waaye li xew Kaffrine moo xewoon fii Nioro daf ci amoon benn historien boobu moo manqué woon fii waaye président Bass euh, candidat Diomaye bi muy ñëw fii gars yi dañoo taxaw fële police ne du dugg fii ci ndigal guñ leen jox yenn jeunesse Nioro yéen a taxaw di xeex ak ñoom 23h ba 4h du matin Diomaye Bassirou Diomaye dugg fii biir Nioro daanaka heure xëdd kon loolu il faut histoire xam ko. seen jàmbarte fuñ ko wees fuñ weesu na ko ñu ci loolu dem ci élection bi ñëpp gis nañ élection bi jàppoon ni Saalum rawatina Saalum des profondeurs lu mel ni Nioro ñëpp jàppoon ni opposition mënu koo gagné yéen jeunes yi ngeen def ko défi def ko Paris jël engagement ni bu soobee yàlla mars bu ñuy lim dëkk yi nga xam ne président Bassirou gañe na ko kenn ci bay Nioro loolu am na wala amul kon gàcce gaalaama yéen amuñu seen fay ñu dellu siwaat juróom benni weer ñu ne dañuy dem élection législative waaye defe naa na Maïmouna Bousso Serigne Mbuub Boubacar Camara ñi ñu àndal ñëpp bi ñu commencé ba ci wàllu caravane spontané defe naa kenn rawagul Nioro kon lii li muy wund mooy dafa am kóllëre goo xam ne Nioro fasante na ko ak ñun kóllëre nag yéen ñëpp xam ngeen liñ ci wax mooy ku njëkk wor dina ko digaale ma jox leen garantie ñun ma jox leen garantie muy sama gouvernement muy président Bassirou Diomaye Faye wallaahi duñ leen musa wor amul lu ñu ko jaral ci àdduna duñu leen musa li ñu toogee léegi juróom benn weer la ci loo xam ne xam ngeen mandat cinq ans mandat cinq ans juróom fukki weer soixante mois mooy ñaata juróom juróom fukki weer la juróom benn fukki weer yi dawal ci juróom benn mooy un dixième yéen waa Nioro laay laaj li ñu jot dawal ci lu gàtt ak jafe-jafe yi ñu ci fekk ci ni ñu sàccee xaalisu réew mi ak ni ñu naxee réew mi ci li nga xam ne mooy statistique yi waaye ak jafe-jafe yi ñu amoon parce que yoruñu woon assemblée nationale pour mën a wote ay loi waaye malgré gàllankoor yooyu yëpp li ma la laaj lu gàtt la est-ce que li ñu defagum dal na seen xel walla dalul seen xel. kon kon ca la ca des ñun liñ leen laaj bëreetul de kóllëre gi dox suñu diggante def ngeen seen wàll le 24 mars liñ leen laaj bëreetul de dañoo bëgg gouverner xam ngeen gouverner mooy lan mooy programme bi nga tëral présenté ko adduna yëpp maa ngi ni programme bii ku ko taxawal Sénégal Sénégal baax ba faw programme boobu la ñu bëgg doxal bokk na lu ñuy yombalal ñu doxal ko mooy ñu téye assemblée nationale ci téye bu dëgër mooy ñu téye assemblée nationale ba saa ñu bëggee xam ngeen li nga wax kontaan naa ci li ngeen wax waaye majorité jafewuñu ñun bëgguñu majorité ak yem ci ndax boo amee boo amee tey sur 165 députés boo amee 80 ñaata soo amee 99 députés am nga majorité ñun nag loolu doyuñu 99 c'est pour avoir une majorité qualifiée waaye loolu dañu loolu doy ñu parce que ñi ñu jàkkaarloon yéen est-ce ngeen ni ñooñu mérite nañu am 10 députés ñi ñu jàkkaarloon ak pàcc boo ci jël pàcc boo ci jël moo xam clubu ñi këpp kay réew mi wala moo xam clubu tàng xol yi parce que ñaar yooyu rek la ñi këpp xaalisu réew mi ak tàngu xol yi est-ce que ñooñu mérite nañu am 10 députés 10 députés. leen est-ce que yéen suñu waxtaan bi ñu waxtaan démb ci mitingu Kaolack bi est-ce que déglu ngeen ko. déglu ngeen ko. est-ce gëm ngeen loolu ma fa wax ci ci ci pôle bi nga xam ne moo jël Saloum jël Sine jël Njombato jël euh, Ndukumaan Kaffrine Kaolack ak Fatick li ma leen faram fàcceel démb ce que wóor na ni buñ ko defee Saloum baax defal ci xam kon loolu mooy solo élection bi jox leen ñu une majorité écrasante mooy gën saa gàtt cent cinquante wala cent cinquante cinq député la ñu ngeen jox ñu ko kon mbokk yi Nioro ñun bëgg nañu le 17 novembre bu ñuy lim heure bii xam ngeen 17 novembre heure bii mbir yi leer na bu ñuy lim département yi ëpp li jox président Diomaye pour féddali liñ ko joxoon déjà bu ñuy lim ci jiitu na ci ñoor a bokk bu ñuy lim ci jiitu na ci ñoor a bokk gëm naa ni dina doon lu yomb ndax am na lu ñu joxoon mu dépassé cinquante pour cent te diggante ba moom candidat bi wax na ko ay maire ñëw nañu dooleeku ci andi seen doole ay opérateur économique ñëw nañu andi seen doole ay kilifa diine ñëw nañu àndi seen doore kon bu doon kàttan gi benn la woon ful nañ ko tey ba mu doon juróom moo tax man awma ci sikki sàkk la ca des nag la ca des nag yéen a fal président Bassirou joomaay yéen a war a ànd ak moom mbir mi yemul ci ay élection bu élection bi weesoo nag dañuy jëm ci liggéey réew mi jublu ci mbay mi jublu ci càmm gi jublu ci napp gi jublu ci industrie jublu ci infrastructure yi la may xaar ci yéen ndaw ñi li may xaar ci yéen ndaw ñi léegi moom dafa ne fii Jakarta rek a fi am ñun ñëpp xam nañu capacité wala potentiel bi am fii bu ñu ñëwee ci yéen andi leen ay projet ne dañoo bëgg ndaw ñu dellu ci mbay mi est-ce que pare ngeen pour dellu ci mbay mi parce que nag bëri naa ay ndaw yoo xam ne tey bëggatuñu bay xam naa ci dara man nag su ma wax mbay mbay mu moderne laa wax mbay bu ñu motorisé mbay bu ñu subventionné mbay bu ñu jox ndox bu mat sëkk ngay bay nawet di bay noor mbay moo xam ne loo bay ñu jënd ko transformé ko ci réew mi est-ce que yéen waa Nioro pare ngeen pour dellu ci mbay moom kon kon mën naa ne fii di wax suba ba guddi lu ñu wax ci infrastructure moo jëm ci tali mu jëm ci ay hôpitaux mu jëm ci ay stade mu jëm ci ay lycée lépp a nga ci programme bi lépp nga ci programme bi jox leen ñu dooleel leen ñu moyens ñu liggéeyee mooy ngeen jox ñu assemblée nationale bu dëgër am ngeen président bu baax am ngeen premier ministre bu baax am ngeen gouvernement bu baax jox leen ñu assemblée nationale bu confortable fii ak 2029 bu ñu dellu naan dañuy def évaluation yéen ñëpp di ngeen ne li ñuy waxanteewoon ak yéen def nañ ko. kon duñu guddal wax ji ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax guddi na. te ñu dese dafa bëri yàlla xam yàlla xam na ni nee ma ma daaneel rek nee leen ma daaneel rek yàlla xam na ni doylu ma ci yéen ndax man. man damay wax loo xam ne yàlla rek naa ci jël seede boo xotti woon sama xol bi kenn ku nekk ci yéen yaa ngi ci biir mun leen xam ni ma leen bëggi su may xëy su wëggoon jot lu ma daj ngir yéen la su ma sañoon lañu fanaan ba pajaat di waxtaan ni ma leen bëggee dama ci boole jeunesse senegal bi yëpp waaye li ma leen mën a garantir mooy une nouvelle page est ouverte gis nga Sénégal gii gannaaw yàlla kenn mënu ñoo teel ñu defar ko kenn danañ ko defar ba mu ne cëcc ba baax ba kenn dootul xalaat mbëkk kenn dootul xalaat génn réew mi kenn dootul toog di am njaxare alalu réew mi delloo ko si ci réew mi mu jëriñ waa réew mi ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum